pétrole ak gaz li ko lal mooy responsabilité citoyenne mooy la stabilité mooy ñu tabaxandoo bu ñu taba tabaxandoowul bu ñu boolewul bu ñu amee or am diamant am pétrole wala gaz du am benn njëriñ réew mi li mu soxla mooy stabilité et parmi les éléments d'instabilité mooy cette histoire de troisième candidature mënuñu toog fukki at ak ñaar ci ginnaaw ñu toogoon ji wax ci loolu tey gi ñu bëgg cee waxaat loolu dafa war a dàq loolu moo tax mouvement citoyen demain c'est maintenant ne nañ ñëpp engagé wu pour loolu mu feete boor ñu attaquer les questions essentielles voilà. par rapport à ces questions essentielles ndax bokkul ci li nga xamante ne mooy la participation inclusive euh, de li nga xamante ne ñooy candidats yi. mais clairement dama jàpp ni man démocratie ak élection boo ci dem affaire bi doo du question di ut pexe ni ngay éliminer sa morom déet. da ngay dem teg sa programme wax ak sénégalais yi ñoom ñooy voté ñoom ñooy tànn mais boo nee man duma ma jàkkaarloo kenn te yow déjà munoo bokk finalement naka lay demee démocratie il faut ñu nangu les règles du jeu ñu ubbi jeu bi ñu bi parrainage bi filtre mën nañu d'accord ñu fexe nu ñuy defee filtre waaye nu ñuy defee barage obstacle élimination loolu nekkatul parrainage utiliser la justice à des fins politiciennes loolu itam du démocratie du justice man waxuma nag impunité waxuma ku nekk nga def li la neex ku def loo xamante ni da nga jàdd yoon justice mooy atte en toute indépendance waxuma impunité redevabilité itam mais gis nañ fi le rapport de la cour des comptes loolu aussi war nañ ci mën a wax donc ci gàttal démocratie dafa woote loo xamante ni transparence dafa woote liberté dafa woote participation élection c'est un moment de célébration c'est un moment de fête mais c'est c'est pas un moment d'élimination et d'instabilité Aujourd'hui, le président a appelé à un dialogue. Quelle est la réponse de votre mouvement La réponse de DMC, c'est de dire nous ne sommes pas contre le dialogue, mais il faut que les conditions où les contours du dialogue soient définis. À partir de ce moment, on, on discutera, on examinera les points, parce qu'on ne veut pas que ce dialogue soit un alibi pour demain nous dire, bon, puisqu'on a discuté, euh, dans ce cas, laissez-moi me présenter. Moi, je pense que le président Macky Sall, c'est vrai, il n'a pas encore dit de manière officielle s'il y va ou s'il n'y va pas, mais il a clairement déjà dit aux Sénégalais, il y a euh, plusieurs mois, il a écrit que lui, c'est terminé. Donc pour moi, la troisième candidature ne fait plus l'objet de débat. Benno yaakaar je pense, est pour se choisir un candidat en son sein. Sénégal, moo ëpp solo ëpp dayo ëpp ñun ñëpp ñi nga xamante ne ay doomi aadama rek lañ ci biir suuf si la ñu jëm donc tey da ngay ñëw nga doxal li nga war a doxal boo paree nga jox ko keneen ndax pare ngeen pour dialogue yéen. dialogue bii nee nañu mën nañu ne waaw dialogue am na solo parce que ñun dañu wootee mooy tabaxandoo co construction waaye nañu wax li ñuy dialogue wolof Njaay moo ne ku la woo bu la joxul wax la nañu wax donc loolu la ñuy xaar su noppee à partir de ce moment munuñu contre le dialogue le dialogue est consubstantiel ci démocratie parce que bu leen fàtte ni. muy moom mais avant moom président Abdoulaye Wade président Abdou Diouf président Léopold Sédar Senghor dañu doon woote dialogue te dañu doon teg nag ay affaire ñu leer ñu dialogué. am nañu code code 92 bu Kéba Mbaye la commission cellulaire de Diaïté ak Famar Ibrahima saña ci tànk yu mu doon dox diggante Abdoulaye Wade ak ak président Abdou Diouf. donc dialogue du lu bees mais nañu wax ci lan la ñuy dialogué mais doonee man oui je suis d'accord dialogue mais après. ñi wax oui au dialogue après qu'est-ce qui s'est passé est-ce que gis nga dialogue bi commencé voilà c'est ça le problème on va parler un tout petit peu de mi nga xamante ni euh, un des la ci euh, f tey euh, gis nga ndogal bi nga xamante ne moom moo wàcc ci kawam rawat na ci décision bi nga xamante ne moom la justice jël ci procès en diffamation ak appel bi nga xamante ne Mame Mbaye Niang dugal na ko tey mu am sursis ak li nga xamante ne dommage intérêt ci toll ci 200 millions tey ban commentaire ngay def ci loolu étant donné que tey éligibilité am dafa nekk en waaw loolu sama commentaire du ci sori dafa nekk en defe naa amul fenn fu ñu prononcé que mënul dem élection euh, dem na ñu àtte ko digganteeg moom ak euh, Mame Mbaye Niang justice jël na dogalam d'abord en première instance am benn peine bu mu prononcé woon cour d'appel à la suite d'un appel jël beneen dogal moom Ousmane Sonko war na mën a def pourvoi en cassation donc procédure bi jeexagul bu ñu yàkkamteegul nañu bàyyi ba procédure bi jeex su booba dinañu xam après naka lay dem